Ndeye Marieme Ndiaye asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm soxna yi nekk ci biir parti démocratique sénégalais ñoom de fu mu nekk ñi nag nee nañu daal takk nañu seen sër bu baax a baax te li ñu fas yéene def nag moom mooy defante ak nguur gi nga xam ne nag tey jii de mën ngay jël seeni responsable benn par benn di leen ne ràpp ci biir kaso culikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb soxna yooyu nag ñu ngi doon dajek taskatu xibaar yi si leen ñu daal di xamle ni fu mu nekk nii moom Macky Sall dafa ragal dafa ragal dong lool daal moom moo tax bu muy jël article 80 di ko teg ci ndodd loolu képp koo xam ne nag tey jii dee xam na ne daal mën nga kaa yëngal aujolikay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne soxna yi a ah démb fippu nañu te it nee nañu fu mu nekk ni moom xeex bi dañu koy gën a dina dinañu def seen kéem kattan ba ñi nga xam ne tey jii dee dañ leen ci biir kaso ñu daal di leen bàyyi ci nii ba ca nee aujolikay bii di Sud Quotidien nañu kon waa PDS ak tamit ñi nga xam ne de ñoom la longool ñu ngi waajal bu baax a baax ba sub ñaar ki fan ak ñett ci weeru mars wante ci biir aujolikay bii di Le Populaire ñi nag ñu ngi ñuy xamal daal ne su fekkente ne nag PDS yëpp de ngay mobilisation fële nga xam ne de moom mooy te tribunal am na ñenn daal ñoom la maître Abdoulaye Wade Lungo fu mu nekk nii dafa mel ni nag ne mbir yéen a mu tëddal seen xel ci biir culikay bi ñu xamal ne front patriotique pour la défense de la république ñoom daal nee nañu yenn ci kàddu yi nga xam ne nag ñu ngi koy faral di yëkkati di ko teg ci ndodd kii di Macky ñoom daal bu ñu sañoon ñu daal di koy bàyyi ndaxte loolu moom fitna dong lay indi fii ci biir réew mi cukalikaay bi di laas nañu maître Abdoulaye Wade bu mu leen dégloo ba pare dafa leen wax daal ne fu mu nekk ni moom ma ngay dalal seen xel ndaxte moom nee na amul bi xelam ko wante ci biir cukalikaay bi ñu ngi xamal ne maître Abdoulaye Wade même su fekkente ne nag fi mu nekk ni daal daal di ne wax daal ne moom bëggul taal dëkk bi leen wër na ko nee na daal du nangu tey du nangu ëllëg doomam bii di Karim Wade di ko tëj ci biir kay bii di la populaire sax mi ngi ciy yokk di ñu xamal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars maître nee nag dafa fas yéene nag dem fële nga xam ne de moom justice ngir fas yéene nag teewee verdict bi xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade li am ba des daal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci bopp nguur bi di l'observateur mi ngi ñuy xamal ne ñoom it de waajal nañu seen bopp ñoom it nee nañu daal du ñu toog di xool waa PDS ak seen i ñooñ di taal dëkk bi loolu nag moom moo tax ba am na ay stratégie ay plan yoo xam ne daal daal nañ ko fii taxawal ngir fexe nag ba képp koo xam ne dangay ngay def naka su dul noonu ñu war laa mën a teg loxo fi mu nekk nii nag ñu ëpp ci ñuy teg loxo bu Dakar au jublikaay bi di enquête du ñu xamal ne waa rawatina nag ndaw yi nga xam ne dañoo ñoo fa dëkkee dañu lii ni mel faw mu dakk lu tax chaque fois bu ñuy wax ne fitna am na yëpp ca banlieue ba lay dem li ni mel dootuñu ko nangoo nenañu fu mu nekk nii moom Sénégal yemul dong ci bésub ñaar gi fan ak ñett ci weeru mars am na yeneen mbir yu leen di xaar kon ñoom fu mu nekk ni daal fitna moom dootuñu nangote ñu ciy joxoñ baaraamu tuuba askan ba dëkkee ca banlieue bu Dakar Fou Malade Fadel Barro ak Aliou Sané yegsi nañu nag fii ci biir Ndakaaru ginnaaw ba ñu leen dàqee ca RDC ga nga xam ne nag foofu sax dañ leen tëjoon ca kaso ga coglikaay bi di la soleil di ñu xamal ne démb nag ba ñu yegsee bëri woon nañu leen teextu ñoom ñooñu di waa Yanamar seen kaddu yi njëkk moom mooy daal di gërëm gërëm san askanu réewum Sénégal di gërëm tamit ñu bokk ci biir mouvement Y'en a marre gërëm tamit consul bu Sénégal fële nga xam ne nag moom mooy ca Congo wante nag dañoo ber ngërëm nag njiitu réew bi di Macky Sall ndaxte waa Y'en a marre wóor na leen nag ne njiitu réew bii di Macky Sall de moom moo def kéem kàttanam ba ñu mujjee leen a génne ca kaso wàllu tàggat yaram nañu koy jeexalee rawatina nag wàllu football cuglikaay bi di waa sport nañu nag suñu gaynde yi démb de daal dinañuy duma ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Mali loolu nag moom moo tax ba ñu qualifié ci wàllu final journal au juglikaay eh, bi di wax sport ne guleet nag ñuy nemmeeku suñu gaynde yi di weesu nag li nga xam ne daal moom mooy premier tour bi kon nag jàlloore bu rëy la ñu def suñu naataango yoo juglikaay bii di stade di leen ci feelu di xam xamle nag ne démb de ñi nga xam ne nag ñoom ñooy gaynde yi dañoo sukki waa yi daal di qualifié nag ci wàllu final fas yéene nag daje dimanche ak waa Nigéria lii moo nekkoon mbokk jullikat yi di gën fas ci biir au jullikaay yii ñu leen di ñaan la jàmm